waaw pour benn précision bu ndaw rek waa naafila bi pour ñi nga xam ne ñoom dañoo prévoir woor suba incha allah maanaam suuba lañ commencé tàmbali seen seen weeru koor euh, ñoom ñoo ko war a def tey incha allah pour ñi nga xam ne nag euh, tey lañ woor ñoom euh, tey tey le deux le deux avril bi ñoom dembal lañ ko waroon def léegi daal am na benn lien bu nekk ci description vidéo bi defna ñu fa trente naafile yëpp incha allah ku nekk rek si jour bi nga tambalé woon mën nga ko jël inshallah لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو كثيرا فكلي كسي ابوني اك سي كلوس بو ndaw bi pour vidéo wuñ munti nga mën ko ñëk am bul faté cliquer ci abonné ak ci cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ nga mën ko ñëk am a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيوغي نواسي سين شين مسلم تيجلين اندي نافلين حمد ممن والدف شوير كوارو إن شاء الله بغن يتوبي شاكشور إن شاء الله دين لين تغل نافلة بين حمد ممن والدف كون قدفين يعني ويدي أبوني ويدي بارتاج الفيديو ويبقى بقى wasalaatu wasalaamu ala rasulillah ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi julli ci guddi gi jëkk ci weeru koor fukki rakka bu ci ne faatiya benn yoon inna ansalnaahu ak kaafiroona ak lixlaasi lu ci ne ñaari yoon yàlla dana ko xaraamal ci sawara te bu ñaanee aajoom yàlla dana ko faj laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرجا